moom bu ko rombee cër bi ah, ak ak ak taalibe gi hmm. Aziz ñëpp la amal jàmm hmm. quartier bi muy suñu suñ suñu yaay yi suñu papa yi ah tey képp koo xamante ni am na ñoo xamante ne boo leen dee jël duñ mën a wax hmm. tey boo xoolee wàcce kaamil bi koo ci dékk micro muy mag bu la waxee fi mu jaar ak Aziz da nga naan déedéet eh, te loolu sax day wane ni Aziz daanaka bi mu demee la ko ñu bari xam parce que man keroog gis naa benn vidéo boo xam ne bi ñu xoolee sàggam ñu ngi ci fekk man mii di wax sama grand wax na ko sànq Aziz du faat waxtu waaw Aziz waxtu du ko fa man saa yu toogee bu heure julli jotee barki Mouhamed billaahi danaan ma booy saal ma satale sama kër ñu jàpp julli waaw du faatu waxtu man Aziz ci tiitatuma ko quoi ko affaire bi nag jëlee nañu kaw parce que ku ñàkk ku mel ni Aziz dina la mm. jëlee kaw boo mm. xamante ni xam nga tout le temps yéenay nekk xam nga yaa ma gën a xam Aziz bu amee ci lu baax ñëpp la ko yéene. képp artiste buy dox rek Aziz yéene na lu baax. mu mel ni daanaka faat nañ waaye turu Aziz moo dem waaye daanaka yéen personnel bi yëpp boo xoolee daanaka ñàkk ngeen. dëgg la ma la wax a ñàkk. ki def lii faatul Aziz rek ñun ñëpp la faat. famille la faat. Mhm. parce que man ñun gëm nañu ñun Aziz su amoon ñaar bala ma am ñett. dañuy bokk ci ñoom yi sedd kon ki def li ñun la faat mais faatul Aziz waaw métti na trop métti na trop mais ñi ngi sant yàlla parce que tamit lii la tey boo xoolee boobu ba tey ñu ngi koy ñaanal di wàcce kaamil kër gi chaque jour day fees xale yi sax dañoo am lu leen xale yi ci koñ bi sax dañoo am lu leen metti dañoo am lu leen metti billaahi waaw Aziz bi man man ba sama doom sax sama doom bu ndaw bi gën a tuuti wóor na yàlla billaahi barki démb damay ñëw xamul li xew mais damay ñëw bërki dem muy seetaan clip bu Aziz si télé bi ni ma papa sama papa Aziz a ngi nii. Oh. anamu. billaahi wóor na yàlla. bi mm-hmm. may tuur xewal tey ma ko. Mm-hmm. kon war a xam ne ñun ñoo ñàkk. Mm-hmm. d' accord yéen a ñàkk mais tey bu ñu ñëwaatee ci fay donte duñ ci dugg ndax tey amoon mbeteel ci yenn tet yi nga xamante ni euh, euh, daanaka dégg nañ leen ci. bert nañ ma. waaw bett nañ ma trop. waaw bett nañ ma. vraiment li am ni daf ma bett bett na ma trop trop trop trop wax dëgg yàlla parce que foogee ma woon ni loolu dina am quoi daf ma bett trop waaw même ku xam ak ku xamul ak ku dégg ak ku déggul ak fu ko waay yëgee dina la bett dem ak Aziz bi ñëpp la bett ñëpp la bett ñëpp la bett parce que man li ma doon wax rek du ma si ma a dellu ginnaaw koo daan àndal di màggali Touba ah ay ñaata at ah ren yéen a waroon a ànd màggali loolu duma ci dellu ginnaaw parce que nit da ngay wax dëgg Aziz ñoo waroon ànd màggali hmm? ah, tey yàlla def li mu tey lii am tey ah, yàlla dogal ko nag sant yàlla waaw dañ ciy sant yàlla bu baax di ko ñaanal waaw ndax ku bëggoon Serigne Touba la nag waaw ba pare ñu ñu tuddee ko maam Abdou Aziz Dabakh Malick kon Aziz sama xel dal na ci moom fa mu nekk ku bëggoon sëriñ Touba la tey lan nga fàttaliku seen diggante yéen ñaar. waaw Agile li ma mën a fàttaliku moom bari na bari na trop trop trop ma ko wax du ma fi jógee. sama diggante ak moom liñ si kaf si ree waaw li ñu mën a fàttaliku bari na lépp mënuma koo lim. waaw mmh. d' ñu gis bi mbir mi amee daanaka ñu cité ñu ci bari daanaka damay wax ni Sénégal léegi moom ku ci nekk procureur nga ku ci nekk daanaka justice la euh, tey ñenn ñi sax ba ci yow sax am na ñoo xam ne jël nañ la taf la Samba Nguer keneen ak keneen tey euh, mu mel ni xeetu ñaawteef yu mel nii bu amee ku nekk da ci profité ñii di ak seen i compte ngir bëgg lu ñu wax te ñoo tëglu te ñoo te ñoo déglu suñu justice yooyu yooyu du ma si tontu ndax xamal tax ma si tontu parce que euh, Aziz moo toll noonu moom moo toll noonu ñun Aziz xam nga am na yu bari yoo xamante ni gis nañ ko ci site internet bi xam nga yaa ma gën a xam ñun yooyu duñ ci tontu waaw parce que yàlla rek ay dëgg mhm. te yàlla rek a wóor waaw te xam naa ne justice senegal xarañ nañ mhm. waaw kon dañuy sant yàlla mhm. sant yàlla rek a ñu war man ñun suñ diggante ak Aziz dara métti ñun Aziz mi dem moo ñu metti man laay ñaar Aziz mi dem man moo a naqari mais du leneen sama digganteek Aziz lay xool moom mi dem moom ma metti mais du dara waaw ndax yàlla rek a wóor ah te yàlla am na te ku gëm yàlla am yàlla téye yàlla ñàkkoo dara. kon yàlla na yàlla di gën di leeral. yàlla nañ yàlla defal jàmm. waaw Aziz fa mu nekk man tiitatuma ci moom. gëm naa ni ma nga àjjana. ndax li tax ma wax ko doon naa toog moom am na yu bari yoo xam doon naa ko seetaan ci yërmande gi mu am ci xale yi Aziz bu ñëwee ci koñ bi sax dina yëkkati xaalisam xale bu mu romb boo jooytoo dara mu yëkkati ni la am ak lim dund ak waajuram Aziz même barki Seydina Mouhamed papaam ji génn àdduna toog naa mu koy ñaanal billaahi da koy ñaanal papaam da koy ñaanal toog naa mu toog papaam di ko ñaanal bay jooy Aziz sax àjjuma mi ngi si mi ngi si bàmmeelu papaam di ko defar di toppatoo kon boo amee ñaanu waajur am barke baay kon lan la ah mm-hmm. ah Aziz ñun tiitalutuñ ko dara mm-hmm. ah, nañ ko ñaanal mm-hmm. fa mu nekk su ah, suuf sedd ci koom yàlla yërëm ko ah xare ko àjjana ah xibaar bi ñi nga xam ne jot nañ ko ñoo def bi dëkk fii si même quartier la def surtout ñu dëkk tey si ak ki nga xam ne mooy Serigne Sarr te ñu ne ñooñu dañoo jege woon ak kenn non loolu moom loolu moom wax dëgg yàlla ñun bi ñu ko déggee métti nañu trop mais lépp rek dañuy bàyyi justice waaw lépp dañuy bàyyi yoon yoon def liggéeyam ñun loolu mënuñ see sori waaw parce que justice dafa am yoon am na nañ bàyyi yoon rek mu def liggéeyam waaw loolu rek lañuy ñaan ko vraiment. ok. ndeysaan gis ngeen day ji ndéegee ngi noonu di jooy ndeysaan ndeysaan xool leen ndéegee ndéegee ngi jooy ndeysaan ndéegee ngi jooy ndeysaan ci waa Siweulko TV ndeysaan ndéegee jooy na nee na juste fait président bala ndeysaan ndeysaan gis ngeen ko noonu mbokk internet Siweulko TV léegi a ngi jooy jooy yu métti ndeysaan xaritam moo dem xaritam la woon mbokkam la woon léppam la woon man liiroo leen lii liiroo Baba. waaw moom moom moom waaw. li ma jàll baax. tabax li ma jàll baax. yàlla suuf ma def ci kaw kii du ubbi tuuti rek. ubbi tuuti rek. waaw waaw. ah Gallo Gallo leen di bëggee bu baax di leen ziare di leen wax ni dañu ñàkk suñu rek yal na ko yàlla yërëm te yéex a suuf oyo si kawam ngeen jéggal ma tey moom loolu rek lañ mën a wax waaw ngeen baal ñu rek ñu dañuy dégg ñuy wax rek wax bu bari lool ku ci nekk di revendiquer man Aziz bi léegi lan moo waral coow lu bari noonu ba nit ñi di wax wax ji moo toll noonu yàlla moo def Aziz dafa bëri woon am ko dafa bëri yàlla ko yàlla yëg te xaaral ko xaj na jàmbaar la waxoon nag mun a sama yaay sama ñu rek ah ñu ngi tuub nag ngeen jégal ñu rek ba beneen yoon